delloo delloo ziar ku baax ñu ngi ziar yaa ngi si jàmm bu baax ñu ngi am mbégte ak contentement di teewaat waa ci Cambérène Cambérène waaw euh, wax dëgg yàlla li ñu waxante woon gars yi def nañ ko ndax nag gars yi euh, gars yi mbaxal nanu ndax dañu woon appel bi chaque année gars yi dañuy defar ay nag ay ganaar ay miwi mais ren wax dëgg yàlla ba ma ñëwee cëpp ñëw gars yi mbaxal nan ma. oh ba ràcc mu wàcc wala la. non mbaxal boo xam ne nii da ngay teg teg nag mu jàll day dem bu eh, eh, nekk di day dem mbaxal mee nga tax waaye waaye di remercier di gërëm sama grand sama xarit Moussa Moussa eh, Diallo wax dëgg yàlla moom ma jëlee depuis ndax indi ma fii boole ma ak ay artistes boole ma ak ay nit wax dëgg yàlla taxawu ma xam ni man handicapé laa handicapé de bëñ laa mu jàppale ma ndax dafa mën a <laughs> di ko ñaanal li mu bëgg ci aar yi ma ko xam handicapé de bëñ. an kañ. ah ah benn xeex ah si kanam si kanam si kanam. yow amul dara. non li mu amul dara dama handicapé de bëñ. handicapé de gëñ. boo ko bëggee faj doo wax ñoom Marième Faye Sall ak yooyu ñu dimbali waaw maa ngi lancé appel à madame le première dame. madame Mansour madame madame. madame Mansour Faye. madame ma Marième Faye madame Mansour Faye laa wax de eh madame Mansour Faye laa wax de. madame Mansour Faye madame Malem Faye Talla doomu nga doomu laa xamante na bu baax maa yow jàmm laa dëkk yow njëlëseen nga dëkk seen koñ fala doon sàccee sa puute ba daan sama gém gi bi dem <laughs> kon xam ngeen xamante ne laa sa appel gars yi waaw li nga wax ni bëñ yi na gars yi wax ci bëñ yi leen ñu nooy gudd na gudd na duñ dem xale bu jigéen nee ma nga am ay bëñ yaay xale bu jigéen bi nee <laughs> nga monter ay bëñ bàyyi xale bu jigéen bi nee na ma foog nga am bëñ waaw kan gars yi jàpp leen ci bëñ boog bëñ gars yi def kenn ku nekk état bu gouvernement bi ku ne bu yekk woon benn bëñ ma jox ma rek mu jeex premier ministre ministre de la femme ministre des affaires étrangères ministre des ku ne wekk benn bëñ ku ne benn bëñ rek benn léegi wax jeex non gars yi nan dafa nan woote social nan woote kii teplay ku ne na nga dim sa benn man laaj ma xaalis de man ma laaj bëriwul laaj ma xaalis ku nekk benn bëñ rek ku nekk benn bés yi rek maa ngi fay ne dina ñaax maa ngi bu dina ñaax ay ministre intérieur ay ay kii kooku noonu ministre boobu te am am ay bëñ yi rek ministre boobu noonu am na ministre am ay bëñ yu bëri sax xam nga ministre dafay xam nga étranger ki kaya waaw kooku am na bëñ waaw am na bëñ ah ma ñaar rek ñaar nga ñaar ba ma ko sama mayaat ma delloo rek <laughs> waaw maa ngi gën a seeg gars yëpp dégg na see ñoom Tonton Tafa ñoom euh, grand Moussa wax dëgg kontaan na kontaan naa ndax tey tey su ma ñëwee ñu dugal ma ci seen biir wax dëgg yàlla di kas ak man di foo ak man ba da ngay fàtt sax yéen yow mi da nga am feebar wala dara loolu affaire bu nawet la dama leen di remercier di leen ñaanal yàlla bàyyi leen ñu dund ba ci kanam après gi <laughs>